mënuñu woon am ku ko gën soxna Aida Saliou. sëñ Béthio yow la doyloo. soxna Aida Saliou. sëñ Béthio yow la ni yaay man na may yaay man manu sëriñ bi. mënuñu woon am ku ko gën sëriñ Béthio jërëjëfati sëriñ Béthio soxna Aida Saliou dëgg dëgg jëmmi sëriñ Béthio yàlla na fi yàgg lool te wér mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu di leen bëggee bu baax. tay ji nak ñu ngi fi keur soxna Bambi fi ci Madinatu salam ngir dektel len togg aljuma yi nga xam ne sohna legi soxna Aida Saliou mi ngi koy def te ku nek xamna ni barki Dembo Njaay lañ joge ci mu amal ci liggey bu am solo jëfëm ci jëf ci jëf ju reey ji waye nak liggeel Serigne bacio bi nga xam du laal suuf ba mukk tay mom ak togg aljuma yi du ko bër ba mukk waaw mom ngeen li gis mbokk talibé yi ñew ñu leen di dëgtal noonu image yi ngeen ku togg sa ñam faw am ndab woo yàqee soxna Aïda Saliou ndab lu set man ca tibbee soxna Aïda Saliou sëñ Béthio ndab li mu doon wër feeñ ku ci xewlu daj njariñ li la woon démb rëy ba di la yee soxna Aïda Saliou la du Saliou moo waral coow li moo ne sëñ ba coo defoo waxuloo moom lu mu xëy def Sëriñ Tuuba la bu ko liñ xaar gëmal mu doon sa taw féex garab guy doon penc law be du ko seen ba cay jéem sëñ ba coo yéeme yàlla ay mbiram fuñ ko fogeewul lay feeñee lu mu def mu doon yërmande ko seen ba cay jéem sëñ Béthio yéeme yàlla ay mbiram fuñ ko fogeewul lay feeñee lu mu def mu doon yërmande yërmande yi waral sëriñ Béthio jël leen niru yàlla def ko ci moom yaaruj ba ñorle dellu seddale ba dool buur ku am de yaa ko jox tey yërmande yi waral sëriñ Béthio jël sëñ ba co dala waajal yaay wane mbiram mbiram yi yaay dëggal jëfam jëfam ji bravo sëñ de du la suuf garabu beccu du ko seen da sëñ ba de co di du la suuf mu ne yaay man ci am na lu tàbbi sa jëmm ji loolu baatil la saayir si moo nu koy fa mu sumiku far la yaa gën a gaawle te gën neex le yaay wane yi yaay dëggal jëfam jëfam ji rabu sëñ be joob mooy ndeyu daara yee samp cant gi toog gi bernde ndongo yaa ma seere yaay wane mbiram mbiram yi yaay dëggal jëfam jëfam ji rabu sëñ be joob bi du la suuf kon ci mooy dëggal sëriñ be cun ay mbiram daal dul taxaw wooy taxaw ci def jëmm ji yeesal gi dëgg